di leen ziar yéen ñuy suivre Rmo Sport ñu war a ñëw yéen ci benn vidéo euh, wax ci Naby am mu nekk match boo xam ne ñëpp koy xaar na match bu am dool lay doon fii ci Afrique mu war a amee fële nga xam ne mooy stade Abdoulaye Wade ginnaaw Algérie bi ñu dóoree suñu ñaari match mais laataa loolu dañuy wax yéen ñi gan ci bile page ngeen abonné te ngeen bës collège de notification bi pour ngeen maanaam suñu ay vidéo au taaral fii ci Rmo Sport waa sama gars yi kaddu yi nga xam ne bi Dièye yëkkati na ko mi nga xam ne ne Sénégal benn équipe boo xam ne am na benn joueur boo xam ne joueur bu danger la muy ku mel na Sadio Mané mu nekk joueur boo xam ne tëye ko du yomb lool mais même boo tëyee Sadio sax am na yoo xam ne ay joueur lañ yu maa def différence ku mel na ñoom Ismaïla Sarr ak ku mel na ñoom Iliman Ndiaye mu nekk xale yoo xam ne xale yu man football lañ moo tax mu ne football équipe nationale bu Sénégal day xaw metti day xaw a jafe mais Algérie yàgg na daje équipe nationale boo xam ne équipe bu am doo lay doon di ko dóor ci biir Coupe d'Afrique kon mu ne pour Algérie dóor Sénégal mën na compliqué mais lu war a mën nekk la kon kàddu na bi jël yi mi ngoog nañu bàyyi xel ne daal Sénégal match bi mooy favori sur le terrain mais Algérie ñooy favori sur le papier maam ni histoire yi jàll Algérie moo raw Sénégal ci football mais bu dee guddi yi effectif ngay xool Sénégal moo ëpp doole Algérie loolu mooy li nga xamante ne bi ne moo am